Assalamualaikum, suñu mbokk internet yi ñu ngi leen di siyaar surtout yéen ñi di suivre di saxoo Vision Média tey nag dañ leen indil ndaanaan bu mag mag la ñuy invité bu rëy ndaanaan boo xamante ni jarul soxlul présenté ndaanaan bi muy tudd Assane Assane Gawlo jarul présenté yaakaar naa ni war ngeen ko xam bu baax ñu ne nii mu ngi jamono noppi gar mi ne ku ko yor doo ñaaw yaa garmi ɓay garmi ɗum maggi ɗuɗon garmi jirir ley ɗo ɗuma tayiɗilen ɗino faamaw burɓe yalla mo xam di boole ay doomi aadama sen cali satuma sa a siil nañuy woowee sa yi Adja Mbine Sall nañuy woowee sa maam yaay yaayu baay tey laa tumaan atumaan yi naw naa bëgg ko gis ku ñu yëg koy fay xam ngeen ni mag leen di bigi waaw waaw waaw télévision média télévision média waaw lay siar maa ngi lay delloo yow maa ngi lay siar baax di siar sa waa groupe waa télévision ci yi nga def ak nga am ci merci waaw vraiment gis nañu temps yi mbooloo ni la mbooloo bi toppe macha allah yàlla la ca topp. Euh, di gars yi di wax yaa ngi def buzz ci ci télévision yi yaa ngi def buzz ci internet bi mais ba tey ñu bëggoon xam. tey ñu ni bëri na ñuy dégg sa tur. xamuñu ko Assane Diarra. xam nga ñu ngi dégg biir yi ne. dama bëggoon a laaj tey jii nii su ma waxoon kan mooy Assane war nga may tontu quoi. waaw kan mooy Assane Diarra Assane Diarra suñu talaa rek. Mm-hmm. Hmm. bu nekk ci milieu bi bokkook ay ay ay nawle bokkook ay xaritam bokkook ay nitam ay am di jàmmam ñii dañ ko féete mag ñii féete ko papa ñii féete ko mu féete leen mag ndax mooy jamono mooy doxee noonu ndax ku la ku la jiitu ci léegi rek ku lëndam moo lay wax na fa xew te aussi maa ngi nuyu ñëpp sama sama mag yi artistes yi sama papa yi. ku ci mel ni papa Diouf. sama idole. sama star. ba ñàkk ko ba moom mooy sama Neymar. ban relation am ak sa mbokk musicien yi ku ci mel ni Pape Diouf wala Wally wala Sidi Diop. mooy ñi feeñ ak ñu ko talaay ci suuf ban ban ban relation ngeen am waaw sama mbokk artistes yi. ma ne Istanbul laa njëkk a yëkkal Sénégal teg ci Moussa Diouf ma ñëwaatee ci Pape Diouf fi ma gën a neex na ñëpp neex na ma mais fi la gën a neex daa am am déet. ndax ni ku nekk am nga koo tippal sa bopp. koo appal sa bopp. Mm-hmm. waaw ñëpp lay diglu nag. mais kooku moom dafa nekk ci man daa bokk ci man. Mm-hmm. dafa du bokk ci man ba ma xam loolu te nit bu bokkee ci bu bokkee ci yow da ngay xam ne kii dafa bokk ci yow nga jox ko cër bi moom mm-hmm. dama kaa jox ba man sëkk sëriñ bi bàyyi Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. mu jur doom tuddee Seydina Mouhamed mm-hmm. kon kooku muy nag taalibe man Seex Anta Mbàkke borom Daaru Salaam ak Gaawaan borom dërëm ak dërëm mu bëgg ko lool ci xolam ba ma xam loolu ab taalibe la nag pire. ak Sëñ Tuubaa. xolam dara néew ci. muy Sëñ Tuubaa. bala nga koo xam da nga fekk biir këram. loolu ñu naan saa waaj saa waaj damay nga ci gàcce gi ci. bi moom macha allah. voilà loolu parce que ni mu fi jot a limal vraiment. ñoo xamante ni jaar na seen loxo. ay ndaanaan lañu kenn mënu leen génne tey jii ci musique sénégalaise. Mhm. ñu doon ay ndaanaan trop. moo taxit tey jii yow boo mel nii euh, waruñoo bett. parce que tamit ñi ngay ferkande toujours li nit ñi di wax rek. ñi nga ñi nga ñi nga ñi nga dëgg uh-huh. kon man man moom bi kon jaaxlatuma quoi <laughs> parce que ferkante Moussa Dioum. Uh-huh. ñu ne déet nga ni Manel. ñu ne déet waaye nga indil ma Pape Diouf. Uh-huh. daanaan yooyu noonu ku jaar ku jaar ci seen ci seen ci non daanaa rek nga mën a doon. daanaa nga mën a mais di la ñaax rek. wax li nga wax sànq rafet na trop métier boo ci nekkee taxal jubóom ñëpp te di cër leen am na amul solo parce que ñoom fi ñu leen di dégg yow yow mën nañ la dégg fu raw foofu moo tax rafetal rek moom moo moom moo am solo Assane yan jafe-jafe yan jafe-jafe nga dund ci sa musique waaw xam nga nit léeg-léeg nga dund loo xam ne daf lay metti nga dem ba ci biir mu ne mujj a neex. mu doon bànneex mu doon day am. te njëkk a njëkk a metti mujj a bànneex moo dàq. Mhm. njëkk a bànneex mujj a metti. wala yow si bi la yàlla na ci yàlla comme ma bëgg ko lool mhm. bëgg ko lool xam nga seen train bu jógee bànnee jël taxi jëm dem dem dem Dakar rek day day daal di jeex. a daal di dem àndoo. <laughs> <laughs> léegi nag bi ñëwee foofu bëgg a dugg. métti loolu waaye tamit bànneex bi ci ñëw moo tax nit ki boo koy bëgg rek bëgg ko boo koy bëgg bëgg ko. wax léegi yàlla buy defar dafay mel ne luy yàq. Mm-hmm. waaye bu góorgóorloo xàddiwu bu koy teggi doo ko fogee. ndax wàccal sa bopp borom bi yëkkati la boo yëkkatee sa bopp rek borom bi wàccee la. Mm-hmm. te nit ku nekk boo defee déplacement grand ba wan sa sa kër gannaaw rek. Mm-hmm. li ca kanam lépp. nga am yar moo lay jàllale nga am taalibe surtout moo lay jàllale ndax xamoo kan ak kan ngay dajal yoon wi ndax nag aussi da ngay dajal ku ne da nga dajal ku mat da nga dégg da nga dajal ku déggul dara ma ne ba ci porte war a dugg wax dëgg la man dama sa porte bi mu ne ma ñuy baale ma reculé mu ne sa biir ah man de artiste la. soirée Pape Diouf waaw mm. ñu ko moom artiste la loolu moom ban at yées na ko asantam man ma doon fii biir comment xam nga mooy ñiy po ci la faamara faamara ne la tey ku ñëw ku ñëw la ngay dagg bi ma nekk nag fu xool nag fu ma fu mhm. bi ñàkk ne dem <laughs> am nga koo xam am nga fa ko xam li ma tourné seen demb waal ne ko mais sawaay bi mu ma téye mu ne ma ah waaw bu ñu mën a tànn te te dëkk bi après ci la jàpp sama loxo après ñu yi gis ñu ko am jamono ñu artiste seen talent la. gars yi kii ban son ban son la def mën na def lu mel ni suñu la jëlaat ci ay. kon yàlla dogal ma yëkkati sama téléphone wan leen ko. jox leen firnde. xam Sénégal yi dañoo mën a weddi. ñoom. da def benn affaire sax ñu ne defoo ko. mais bu leen ko wanee ci la ñuy mm-hmm. moo tax lépp lu may def rek day am firnde. day am firnde waaw. ndax man loolu laay bëgg tamit. ndax firnde da loo loo gis rek firnde daa baax. xam nga wax ñu gëm. Mm-hmm. baax na trop. Mm-hmm. mais teg ci taabal ji tamit. moo gën a wóor moo gën a wóor. loolu am na. ñi nekk ci kaw ñu julli leen ñaar tuuti rek parce que li Assane di kaas nii bëri na jeune talent yu koy yu koy kaas sérieusement bëri na trop. parce que tamit euh, damay dégg nit ñi di wax. Uh-huh. kenn jàllale bi moom damaa xuus jàll. loolu c'est faux góob ma loolu. fii ku fi jàllale dañ laa jàllale dañuy bàyyi gaa yi ñuy xeet ci bunt yi dañuy xajal seen morom artistes yi ñoom ñi ñu wane seen bopp parce que tey nii ñoom fi ñu toll bu ñu wanewul woon seen bopp bu ñu leen wanewul woon du ñu yegg si tey fi ñu yegg si. dañu uh-huh. bàyyi dañu euh, bàyyi yooyu parce que xam naa ci dara nañ bàyyi nañ bàyyi yooyu daal. nañ bàyyi <laughs> nañ tey Assane. Mhm. Euh, musique bi carré bi nga commencé yaa ma naan sax bi 2011 bu commencé ci nga duggee ci musique. waaw mais ñàkkul ñàkkul benn fan boo xamante ne nii dund nga loo xamante ni nii. tey jii nii neex na neex boo xamante ni soo ko expliqué sax. dafay mel ni da lay delloo ci sa bis boobu quoi. loolu su ko laajee ban bis la may jox ak lan la woon quoi. ban bis la may jox. Mhm. bis bi ma Pape Diouf joxee boobu ma fàttali ko seen TV ñoo ko invité loolu mhm. dama toog nii rek surtout laa toogee nii. bu mhm. jàkkaarloo bi rek muy asal ci la loolu yëgal baasul loolu. Mhm. daal nañu Cheikh Sarr Aliouma ngeen baal ma dafa am sama rakk. di fi teew ñu ne kaay. mu ñëw mu jox la micro dama waxal lu neex. wayal lu la neex lu bëgg wayal. googu mbégte ci musique bi moom. mënuma am bu googu doole. lu ko ëpp ci li ma mais ba tey ba tey mhm. sa musique. bi ngay def yow lan nga yaakaar tey jii nii jàppale hmm. dina gën a leeral yéen ñi nag comme que sa talent moom. bu koy njëkk a laaj ndax am nga ci ñun. la loolooy budd gars yi léegi ndax am nga. dëgg am am nga ci am hmm. liggéey man guddi ñu toll moom. ay mm. ba daal ubbi naa porte yi. waaw Gawlo ngi nii ubbi na ay portam. waaw ndax nag aar dafa yàgg. musique du ëmb mais lan ngay may di la rek. Mm. di sama sopp yëpp. Mm. yi ñi ne Paris. Mhm. ñi ne Italie. Mhm. ñi ne Amérique. Mhm. ku ci mel ne Ndeye Mati Ndiaye mbokkum ndeyu Ndongo ministre de conseil. sama jigéen sama xarit. Euh, bu loolu weesoo tamit comme li ma la wax nga xam ni xatuluma benn yoon. lépp lu ma nekk suba ba ngoon daf ciy dem xelam. Mm-hmm. ak dooleem mm-hmm. kàttanam ak man-manam. Mm-hmm. nga xam ne bokk na ci ñi may ñi may ñi may xuuse pour ma gën a jàng bokk na ci may ñi may may fit bokk na ci ñi may dooleel. mën naa ni sax ajaa mënu ma dem sans moom. moom dem sans moom. mën naa ni Assane bu amoon. ñett ñu mel ne moom. xaj na Assane ak yeneen i mbir. <laughs> ni la ko yàlla dogalee ndax bëgg tamit aussi dafa métti bëgg dafa foog waaw ndax mënoon naa ñëw rek mu tëj ay loolu am na mais saa yu ma ne asal tey laa la gën a bëgg tey laa la gën a yëg tey laa la gën mm-hmm. ma ko fi tojee <laughs> nga dara comme ça <laughs> gars yi ñoom jotul woon xam bi seetaan émission bi xam man talent bi may wax ni mu ngi ci yow <laughs> ah mais mun ko gisal seen bopp surtout su ma leen wayalee su ma leen wayalee ngeen xam ne ndaanaa na leen jiin ndaanaa na leen di jiin waa El Vision Médias dama taay di leen jiin waa El Vision Médias ngi tukkal àddina te dëgg-dëgg yéen ngi xandaalu yéen ngi ondile. yéen a ngi fi lu di felaale ba tax na du ma tàyyi di leen jiin du ma dañ ci di leen wayal ndax yéen a may bigi manit ma di leen bigi yéen a may safoo ma di leen safoo di leen tiitaroo waa El Vision Médias mag yéen àndandoo di law di law di law di law di law ba ndax nag neex ngeen ma neex naa leen tippoo naa leen tippoo ngeen ma appoo naa leen appoo ngeen ma bur bi yàllaay boole ay doomi aadama te moo ma booleeg yéen te muy dëgg joma xaddiwu benn yoon yàlla bu yàlla tas yaakaare li ngeen di liggéey rafet na sell na kun na sàlla cet maa la rëgal waa maa la regal waay cet maa la siixlu waay cet maa la regal waay cet maa la siixlu waay jàppaleen te wa bàyyi asgur dëgg dafay nangoo liggéey di daan dooleem te dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg daale bonalem ak bonalem vraiment kontaan nañ tey torop torop torop ci suñu invité wax dëgg fa yàlla lépp ngi fii talent baa ngi fii fen waaw ah, bu rafet bi mu yore man gëm naa ni bu jàppee fi ñu jàpp bàyyiwul allah dañ ko dégg ci nit bi Sénégal ñu di jaajëfal di leen bëggee yéen ñu ñuy suivre bis bu nekk di ñu saxoo ci seen seen Vision Média ñu ngi leen di daloo njukkal di leen bëggee di wax ni ba beneen émission beneen numéro euh, du yàgg dara incha allah di ko ñu gisaat ci si merci